mbokki lu xew TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar baax ginnaaw bu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak ñaanal ko sëñ Babacar Sy ñaanal ko kilifa diini yépp ñaanal su borom dëgëral leen te kàttanal leen te yàggal leen ci seen kanam ngeen dikkaat seen ñaareelu épisode ci waxtaanu koor ci lu xew TV ci seen seen YouTube bi ngeen di ànd ak seen mbokkum taalibe Abdou Lahad Aw nga xam ni ñu ngi ci weeru am solo muy weer woo xam ni weer yépp borom bi subhanahu wa taala day bàyyi malaaka yi di bind yiw yi hmm. waaye nee weeru koor maa koy fayal sama bopp kon weer woo xam ni weer yàlla fayal boppam la weer woo xam ni nag weeru promotion la mooy lépp loo ci lu baax yàlla da koy ful waaye nit contraire bet lépp loo ci def safaan it yàlla da koy ful nga xam nekk na weer woo xamante ni kenn ku ne ci ñun war nga caa góorgóorlu loo doon def benn ci sa jaam yàlla nga yokk ko ñaar ndax ni ma ko xewoon démb ñu ngeen bi saa nee na ki ko jaaxal mooy ki fekkee weeru koor ba koor gi jàll mu des de bàkkaar nga xam ni weer woo xam ne yërmande lu mu lal njéggal lal ko njotti sawara lal ko nga xam ni ñetti fukki yooyu yëpp boo ko boolee di fanweeri bis yi loolu la làmboo nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na weer woo xam ni weerum fonk la fonk gum ko fonkoon moo tax mu yonent saa sallam bu weer wi musaana jot mu daan soññ jullit ñi ngir yokk seenu jaamu yàlla nga xam ni liñ ci gën a taamu nag ci koor gi bëgg nañ ku woor xëdd sunna la ci xëdd sunna la ci kon képp ku ko man xëdd am na ci solo lool ci koor gi waaye ba tey bokk na ci li am solo ci koor gi waxtu dog wi xam heure bi bu dee dafa nekk dix-neuf heures et bu waxtu jotee rek nga ndogu waaye bu nee ndogu nag ginnaaw timis gi moxtaar gi daa gàtt ah dangay naan kafe rek julli boo jullee ba noppi nga xéewlu ndax it am na ñoo xam ni dañuy topp ndogu li ba timis gi moxtaar bi jàll te loolu lu mat a bàyyi xel la ci koor gi waaye nekk na weer woo xam ni lu waaye mën a profité ci jàng alxuraan ndax weeru alxuraan la te alxuraan karim mooy té mooy téere bi nga xamante ni yàlla wax na ci ni nit ak jinne ñépp bu ñu dajaloon ba nga indi lu mel alxuraan mënuñu ko ndax tanzilu min rabbil alamin qul in ijtamaatu insu wal jinnu ala an yaxtu bi misli hada alqurani laa yaxtuna bi mislihi bu nit a ginne yëpp dajaloon ba nga indi lu mel alxuraan yàlla nee mënuñu ko kon nga xam ni téere la boo xam téere boobu bu nekkoon day am anniversaire alxuraan karim ci la wàcc te it mooy téere bi nga xam ne ni laa rey ba fi huddal li muttaqin képp koo xam ni bëgg bëgg nga am ragal yàlla sikk sàkkawul ni ci alxuraan rek nga ko mën a jëlee ndax alxuraan karim mooy téere bi nga xam ne sax sëñ Tuubaa ne ku bëgg am yërmande yàlla bu àdduna ak alaaxira ci alxuraan karim ngay jàpp kitaabun bihi narju min rahmatan wa nanju min ad-dunya wa uxra min al-karb nga xam ni ku bëgg a mucc àddina baa nga mucc alaaxira baa nga am yërmande yàlla fii ci àddina baa nga am yërmande yàlla ci àllaaxira faaw rek nga jàpp ci alxuraan karim ndax mooy téere bi nga xam ni amul suñu borom gi ci la leere nañ ñi moom alxuraan képp ku jàng alxuraan doo sikk sàkk ni borom bi subhaanahu wa taala lu am la doo sikk sàkk ni yonent bi saa sala mooy waaye doo sikk ci benn yonent bu suñu borom subhaanahu wa taala yónni ndax yonent yi yépp na war a nangu la ko dalee ci aadama ba ci yonent yàlla muhammad laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi yonent yi képp ku di jullit ñoo ñëpp nga war a gëm ñoom ñëpp nga war a nangu te alxuraan googu moo tax sëñ Tuubaa ni alhamdulil xaqil mubiin man kawnuhu liya yabin alal kitaab mustabin maa jamii ña am sëñ Tuubaa na cant ñen yàlla mi nga xam ni amam lu leer nàññe la waaye fan la leere ci alxuraan karim nga xam ni téere boobu nag ci la yàlla waxee wa maa aataakum rasuulu fa xuzuuhu wa maa nahaakum anhu fantahu lépp lu yeneen te saa sa indi ni jëf leen ko na waaye lépp lu mu ne bàyyi leen ko fi ne ngeen ko bàyyi kon fi jamono toll yàlla moom nee na du soppi jamono kenn waaye ku soppi rek ma soppi sa jamono daa mel nag ñun waa jamono badar ñoo soppi ko moo yàlla soppi nu inna allaha laa yuxayyiru maa bi qawmin hattaa yuxayyiru maa bi yàlla nee du ma soppi dund kenn waaye ku soppi rek yaa soppi sa bopp ndax yàlla nee na man kat du ma tooñ saa benn jaam kon ñun jaam ni ñu ñooy tooñ suñu bopp lan mooy tooñ suñu bopp. mooy yàlla lim nu aay ni nañ ko bàyyi bu ñu ko def ñun moom nañu jëf ba noppi bëgg am jàmm kon ñàkk jàmm gënu ñàkk jàmm ñun ñoo xañ suñu bopp ndax yi nu yàlla su borom aaya ba noppi ñun ñu koy def def gi ñu koy def wàññantiku ci ñun gii la nekk lu ci mel ni bañante gi nga xam ne nit ñi bañante nan ko te koor gi dafa ñëw ngir bëgg a faj bañante dindi ko ci ñun ndax koor yàlla boo gisee mënu koy defloo ngir yi nga xam ne day yàq suñu ngëm ci moom ak di yàq suñu cofeel ci yonent saa salaam muy iñaan di soxor di fen di jëw di rabaaj di seede loo xamul xeet yooyu yëpp ay xeet feebar la yoo xamante ni koor na koy faj ndax benn bu ne ci yi ma tudd rek bu ne nit nit def na ko ba dem ca sawar ndax ki mooy ngëneel bu yàlla defal nit nga bañal ko ko loolee ëllëg suñu borom danga ko leer yàlla ndax am naa yaxsuduna naasa ala ataahumullah min fadli ngeen li yàlla def ci jaamam bi képp ku bañ kenn ci jaam yi la yàlla def ci moom nga bañ nit ko am oto nga ni fu mu jëlee oto bi te yàlla su borom jox ko ku taxawal kër nga ni mu jëlee kër gi te yàlla jox ko ku takk soxna nga mu takk ko nga nga xam ne yow saa boo xëyee rek amoo benn jot bu dul ci doomu aadama yi te nit daal jotam wur koo jox kenn ku dul borom bi subhanahu wa taala nit daal jot benn na ci waram mooy jox ko yàlla su borom ndax yàlla boo jëlee sa jot jox ko ko mooy wane di yow kat li ma war ma diggante nit ñi mooy rafetal mooy laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi li yonent wax ni seen gëm yàlla du mat mukk fekk Abdul aw li mu yéene boppam yéenewu ko badal sama jullit matagul waa xoolal léegi ji jamono boo xoolee kaso yi fees na kaso boo gis ku fa dugg ay moroom jullitam ñoo leen fa tey jii tribunal boo ko taxawee jullit bu taxaw ci tribunal moroom jullitam moo ko fa yóbbu tey jii boo ko demee nit ko dikk moroom nitam moo ko fa ñi dem nañ ba àgg dem ci sëriñ fay la xaalis ngeen nga rayal ko nit nit ñi àgg nañ ci jël alal fay ko sëriñ ngir koo ko def nit ña day àgg nañ ci dem ci sëriñ ba jël ci xaalis jox ko nit ngir koo ko tey place bañ ko teg mu daal di wàcc te yooyu yëpp jullit dëgg du mel noonu. ndax jullit dëgg day wéer boppam ci suñu borom yii ma yépp nag ki koy def daa wéerul boppam ci yàlla te ku wéerul sa bopp ci yàlla foo mën a wéeru da kooku daanu wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu inna allaha baalixun amruhu qad jaala allahu li kulli shay'in ku wéeru daal ci yàlla su rek ngay wéeru ndax dikk ci jamono te ki yor dogali mooy borom bi kon koor yàlla su dana ko sant ngir ñu mën caa amee ragal yàlla te yàlla gi nag la ca jiitu mooy nga gëm suñu borom xam ni yàlla kenn la xam ni moom moo yor dogal moo yor nammeel gëm ko gëm yonent li ko dalee ci aadama ba ci yonent yàlla yi sax nga nangu yonent yooyu ni yàlla su doon moo gëm téere yi tawreet injil zabur furxaan nga nangu téere yu yëpp ay téere yàlla joxoon ak yeneen waaye bi alxuraan karim ñëwee nag moo ndar képp téere yëpp nga gëm ko gëm malaaka yi gëm bisu pénc xam ne ñun ñëpp dan danañ taxawaat ci kanamu borom bi subhanahu wa taala yàlla attenu ak lan gëm dogal kon loolu moo nekkoon seen waxtaan tey deuxième épisode ci koor gi ngeen àndoon ci seen mbokkum taalibi Abdou Lahad Aw ci Lu Xew TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Lu Xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité. jokkool ak ñoom. lu xew TV xibaar yi wér te wóor.